chers téléspectateurs de la première chaine privée du Sénégal la 2STV tey nag seen émission au ñu ngi invité nag ki nga xam ne moom mooy njaga Diop njaga jóop moo jiite association nationale des amateurs de courses hippiques ñu koy wax ANACI moom la ñu dalal tey seen émission bu mag boobu nga xam ne mooy ogalu galop tey fas yéene waxtaan ak moom lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu course fas fii ci Sénégal. Ndiaga maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm di nuyu ñi seetaan ñëpp di nuyu suñu mbokk turfiste yëpp di nuyu waa association bi aussi ANACI ANACI association des amateurs de course hippique di ñaanal ñëpp jàmm vraiment di kontaan ci invitation bi di am contentement daje ak yow pour def ak yow émission jërëjëf. association bi dañu bëggoon xam date de création bi. waaw association bi ñu ngi ko créé en euh, grand prix chef de l'État bële passé je pense 2022 je pense que ay 17 le 30 juillet la woon xaw ma lañ ko créer bis boobu lañ dajale matin def euh, suñu assemblée générale yendandoo ensemble après ñu ànd ñun ñëpp dem seetaani grand prix yi. Euh, yan xalaat moo tax ngeen xalaat ko ba créer ko. waaw ñu dañuy kontaan trop ci question boobu. parce que li ko gën a indi mooy dafa nekk amateur dafa nekk loo xam ne dafa bokk ci course war a am ci course te aussi mbir bu ñu bëggee mu dox lu mu mënti doon dañ ko war a organiser du dañuy tas rek ku ne nekk fee ku ne nekk fee ku ne di wax amateur amaat lii wala jockey wala entraîneur noonu lépp dafa war a structuré nga xam bu ñuy wax dañuy waxandoo benn kàddu bu ñuy jëf jëfandoo benn jëf bañ a dispersé wu. course yi à un moment nekkoon na ñu doon na doxe noo xamante ni ba tey sax peut-être ci lay doxe mooy ci désordre total te loolu li koy gën a indi mooy loolu kenn ku nekk xamul lan la moom ak lan la war a doxe ak lan la war a def ak lu mu def te loolu li ko indi mooy lii ma la wax ñun as amateurs yi bu ñu organiser woo les entraîneurs dem organiser wu les jockeys organiser wu les propriétaires dem loolu lépp ñu doon structure yu taxaw parce que ñoom ñoo seq course ñu mën a nag àndandoo ak CNG bi nga xam mooy taxaw ñu ànd liggéey liggéey boobu waa dañuy yëkkatandoo di tegandoo mais bu lépp jaxasoo lii diggu fii lii génn fii du doon lu baax moo tax bi yàlla dogalee ñu ñëwaat aussi ñu ni nañ fexe ñun au moins au niveau des amateurs comme que foofu lañ toll ñu fexe nu ñu organiser woo daje ba mën di yëkkatindoo di defandoo parce que amateur boo ko xoolee daanaka mooy lépp parce que amateur propriétaire bi c'est un amateur avant parce que amateur du kenn ku dul ki nga xam ne dafa bëgg fasu course te propriétaire ci la bokk Zoka ci la bokk entraîneur ci la bokk kon amateur dafa doon loo xam dafa ëmb loolu lépp donc nañ toog ñu waxtaan ñu xool ñun lan lañ mën a indi ci course te loolu booloo daje toog waxtaan indi ay proposition indi ay xalaat moo ko gën a mën a indi sinon rek bu ñu seetaanee course yi euh, fa muy mujjee di doon lu rafet loolu moo gën a tax ñu ñu taxawal ko. Euh, tey booy wax li nga xam ne mooy ANACI muy association nationale des de courses hippiques. tey euh, ki nga xam ne mooy président bi mooy yow Ndiaga Diop secrétaire général mooy Moussa mbay Bopp di doomu Mbàkke euh, ki nga xam ne mooy trésorier général bi di El Hadji Bassirou Djigo moom di doomu Daara Jolof kon yëf yi daanaka yaatal ngeen ko euh, tey est-ce que am ngeen li nga xam ne mooy wane ne yéen ñi association bi nekk ngeen en règle muy këyitu juddu. waaw encore loolu nga tax bi ñu taxawalee association bi rek loolu moo nekkoon suñu première objectif mooy nañ am kayit ba pare parce que mbir boo ciy dugg di ci wax aussi day doon da ngay am da ngay respecté formalité respecté lépp mooy nga am kayit boo xam état mooy wane ni yow lii taxaw na am na pour nga soog a mën a doxal say say say say activité donc moo tax bi ñu jógee ci assemblée général boobu durant année bi ci topp yëpp moom lañ doon toppatoo suñu këyit boobu ba yàlla dogal euh, le 2 mars bi passé 2023 suñu këyit bi moo nekk nii ci lañ jot suñu récépissé donc mu doon loo xamante ni léegi c'est acté association nationale des amateurs de course hippique ANACI mu taxaw état reconnaître ko donc moo doonoon suñu premier objectif. parce que aussi li ñu bëgg def yëpp il faut ñu tegu ci yoon ci dëgg aussi pour mën a yeggale li ñu mën a def. Euh, ñi nga xam ni ñoo jiite course Sénégal di CNG course hippique est-ce que ñoom am nañ les informations qu'il faut wane ne am na association boo xam ne dafa jóg pour fexe lépp loo xam ne luy jëmale course si kanam ñu dugal ci seen loxo. waaw waaw loolu loolu loolu dëgg la bi yàlla dogalee sax bi ñu xoolee association bi avant récépissé bi génn course yi xawoon na fi am ay tension ci leen njëkk a bind lettre CRG booba bon booba reconnaître guñu amaguñ kayit mais teewul situation bi laajoon na ko ci lañ ko njëkk bind pour wane ne ko course bi tension yi ci nekk wax ko suñuy xalaat wax suñuy proposition parce que daje boobu ñu def après sax ñun bi ñu ko bindee lettre waxoon nañ ko wool ñëpp ñu toog daje ñu waxtaan pour problème yi mën koo régler suñ première lettre bi ñu njëkk a bind CNG boobu la. waaw ma profité ci occasion bi comme li nga doon liiree bureau bi sànq Bassirou Diogo la trésorier ñoo ànd mu jóge Mbàkke parce que bi ñuy taxawal bureau bi loolu la ñu wax comme national la nañ fexe gox bu ne ñu am fa ak ñoo xam dana représentant pour mu gën a mën a yaatu gën a mën a def euh, élargissement bi donc mbay bopp boobu dëkk Mbàkke donc mais les suñ première lettre CNG ñu ngi ko ko bindoon euh, kii boobu ñu ngi classifié euh, kii yeeg yëpp. accusé de réception yeeg yëpp. Ibrahima Diop Makor ñu ko remercier euh, au passage moom moo yóbboon lettre bi CNG. déposé ko fa suñ première lettre boobu la woon. donc après ñu continuer malheureusement amuñ ci réponse mais loolu lépp amul woon solo bi ñu continuer aussi affaire yi dem ba suñu këyit génn le ministre des sports ba Diattara moo fi nekkoon moment boobu bindoon nañ ko lettre aussi pour xamal ko situation actuelle du course ak lu luñ ci xalaat ba demandé ko woon suñ ko mënee gis am audience ci moom ñu def ko lettre ba tam demoon na bañ am accuser mais de réception mais amuñu réponse tamit donc association bi kayit yi génnee euh, propriétaires yëpp daanaka en grande majorité bind nañ leen lettre yëgal leen ko def leen photocopie récépissé bi def ko mais de même seen CNG ak euh, propriétaires yi ma la wax ñu ci bari bind nañ leen ko ba des éleveurs donc pour di pour xamal leen ne lii judd na lii am na te lii mooy ay objectif am mooy accompagner le CNG pour ñu jóge ci niveau bi ñu nekk dem ci à niveau supérieur. Mhm. Euh, wàllu relation yi ndax wax nga objectif yi nga xam ne moom ngeen xalaat accompagner le CNG waaye filière équine bi dafa yaatu ndax am na propriétaire de chevaux am na entraîneur am na jockey am na amateur waaye direction ministère de l'élevage ak ministère de sport aussi ñoo ko séq muy waa DDE e, direction du développement des équidés waaw léegi tey yéen objectif yi. waaw objectif yi rek comme li ma la ko waxee sànq xaw ko brosser objectif yi du dara lu dul accompagner le CNG quelque que soit alpha CNG bu mën di taxaw mais état koy taxawal bu taxawee ñun suñu warugar mooy accompagner ko lépp lu ñu xam ni xalaat bu rafet la ñu wax ko ko lépp lu ñu xam ni lii mën naa indi ay problème ñu xam wax ko ko avertir ko xam ni ko lii ak lii bu ci demee mën naa indi ay coow mën naa indi problème donc ay proposition lañ mën di indi ci ànd ak ñoom ànd boo xamante ni aussi àndu sincère la war a doon ñu ànd ko ak ñoom xamal xamal leen ko donc euh, comme ni nga ko waxee ministère des sports bindoon nañ ko leer du temps de Yankoba Diattara même bi ko euh, le premier ministre Amadou Ba euh, yoree bind nañ ko lettre aussi waaw ministre des sports en même temps que premier ministre moom tamit bind nañ ko lettre xamal ko ni ko association bi boole ko ci photocopie récépissé bi xamal ko ni ko association bi am na te association bi lii mooy seen xalaat ci course yi lii ak lii wax ko ay proposition lu bëree bëri wax ko donc pour vous dire ñun chaque fois bu ñu amee xalaat euh, ki mu concerné dinañ leen ko yëgal xamal leen ko donc malheureusement nag bon mosuñu cee am tontu même au niveau des propriétaires bi ñu leen yégalee wa xamal leen ko ba tey nii amuñu ci réponse je pense que euh, bu ñu amee peut-être ku ñu ci remercier euh, ku ci mel ni Pa Moussa Thiam parce que bi moom bi mu yëgee nii lii rek am na mooy la première personne bi nga bi nga xam moo ñu gën njëkk a euh, approché vraiment rafetlu ko ba pare def ab geste may ñu xaalis boo xamante ni au moins ci lañ doon def après dinañ ci ñëw ci kanam suñu réalisation yi ci lañ ci xaw a taxawale yenn point yooyu donc boo jugee ci loolu peut-être ku ci mel ni Bibo Cheikh Tidiane si aussi année passée bi doon nañ jàppale euh, ci vraiment ci journée yi bu ñu ñëwee bu ñu amee lu ñuy récompenser ay jockey yu mel noonu mu ñuy may du temps pour ñu mën koo réaliser ba am na bis boo xam ne sax am na prix boo xam ni aussi ñun la ko joxoon ñoo ko décerné donc loolu lépp ñu koy rafetlu ak ku ci mel ni yow mi nga xamante ni aussi bi ñu ñëwee defal ñu interview ba pare di ci micro central bi à chaque fois nga yëgal nit ñi ni lii am na pour nit ñi gën cee gën cee gën cee bàyyi xel donc loolu ci lañ nekk. tey seen euh, acteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci filière équine bi seen relation ak ñoom parce que mënoo wax course fas wax propriétaire wax entraîneur wax jockey te waxu amateur amateur mooy seetaan parce que c'est des passionnés relation yi ngeen am ak ñooñu. waa relation yooyu ñu am donc am na yu ma ci xaw a junj donc euh, mooy comme propriétaire yi donc bi affaire bi amee yëgal nañ leen ko xamal leen ñu leen. ñun li ñu bëgg mooy accompagner filière bi à tous les niveaux donc rehausser le niveau jëm ko yóbbu au niveau professionnel parce que ni ma niveau amateurisme bi ñu nekk euh, jëmul kër te amul kenn intérêt parce que course boo ko xoolee en général amul kenn ku ci am ku ci am ku ci am ku ci am intérêt amul kenn propriétaire bi day dawal di perte les jockeys peut-être ñaar ñett ba ñeent ñoo ci bénéficier wu de gis seen bopp ana ñu ci des les entraîneurs de même ñaar ñett ñi ci des anañu boo ñëwee ci zema amateur yi bu ñu ñëwee course pour seetaan normal ni ñu ko bëggee amuñu ko conditions yi normal luy xew duñ ko yëg amuñu benn information dañuy ñëw rek xëy ñuy lii la lii am lee am fas yu dàq nañ ki yu dañ koy amul dara loo xamante ni c'est clair et net boo xamante ni amateur bi dina ko xool am ci vraiment fierté organisation bi aussi ni muy demee bon yaa ma gën a xam boo ñëwee foofu ci paddock bi ni muy demee piste bi dafa bari lu baree bari loo xamante ne daal dañ ko war a dañ ko war a dañ ko war a jéem a soppi xar kanam mi ngoog dañoo war a soppi xar kanam bi mhm. xam ni ça doit générer des million mhm. parce que fas yi ay millions la ñuy jar mhm. donc kon niveau bi dafa war a yéeg dem beneen niveau pour permettre euh, sponsors yeeg ñeneen yi ñu mën a gën a dugg si ci millier bi ñu jeunes yi tamit gën a mën a dugg ci milieu bi gën koo ñemee gën a mën a investir parce que am na yenn jeunes yi ci benn benn yu ci jéem góorgóorlu mais bu méttee ak continuer métti nii fa ñuy mujjee mooy dañuy daw te boobaa filière bi day mujj yàqu parce que ñi ko yor nii am na ñoo xamante ni ñi ngi jëm mag donc am na fu ñuy tollati aussi est-ce que seeni doom dañ ko yegale donc parce que ku ci mel ni exemple mën naa koo lim sama mbokk la ku ci mel ni Samba Koura donc bi mu fi jógee est-ce que relève bi ni Samba taxewoon est-ce que famille bi noonu lañuy ñuy taxawaat après donc mais su fekkoon mi ngi générer de de de des bénéfices de générer de xaalis donc euh, sa famille ses danañ gën a fu ba Samba tegoon tànkam danañ gën a yéegal ci kaw. donc moo tax question yooyu foo ñu ciy xalaat sinon rek am na ñoo xamante ni bis bu ñu disparaitre affaire bi mën na faa jaare jaare yàqu donc il est temps il est temps ñu koy wax jeunes yëpp aussi di woo ñëpp ñu xam ni il est temps ñu taxaw pour course yi sauver ko pour course yi jóge ci lii mu nekk dem ci dem ci professionnalisme détails yi ñu bàyyi ko dem ci ce important fexe ba am hippodrome national fexe ba am ci ay course ay mbàkk ñu amaat fa ay course daara course yi ñu defar ko Thiès jekkali ko am national ba pare dëkk yooyu yëpp ay Tiwaawan Louga yooyu yëpp ñu defaraat ko ba mu gën a baax hmm? dina permettre jeunes yi gën a am gën a am gën a am ambition gën cee gën a dugg daal suñu suñu suñu mbëbët mbëbët daal vraiment yooyu la yooyu la. Euh, wax nga lu am solo muy ci wàllu organisation gis nañ ne paddock bi foofu mu nekk bëri na càmbal càmbal loolu ñëpp ñoo ko remarqué. te am na surface boo xam ne nekk na à côté muy foofu ñuy wax tournalu professeur ci am tey loolu bu ñu ko jëloon aménagé ko def ko paddock def ay banc fas yi di fa nekk bu ñu xësee ba dugg rek ci biir pist bi xam ne dañuy def présentation ñu dem ci euh, li nga xam ne moom mooy euh, euh, stataires yi muy muy box yi ñu maye départ ñu dem benn désordre bi dina wàññeeku sama xalaat. waaye li nga wax lu am solo la lu am solo la Paddock bi li ñu ko indi ci kanamu loge officielle bi moo tax ñu bëree bëri dañ fay excité dañ fay bëgg a wanewu dañ fay bëgg a def moo tax ñuy def loolu mais bu fekkoon à côté la ne un peu loin euh, du bi am na détails yoo xam du am am na détails yoo xam du am parce que foofu fa ñuy nekk c'est un peu loin donc euh, public bi duñ leen gis am na yooyu détails yoo ci dugg mais li ñu koy def ci kanamu nit ñi moo tax ñenn ñi dañuy bëgg di fëslu ñenn ñi dañuy bëgg a wanewu gis leen maag leneen ak leneen loolu mooy indi désordre total boobu di am te comme ni nga ko waxee euh, foo mënti dem ci àdduna bi daanaka paddock bi nekkul ci biir piste bi à côté lañ koy defee ñu préparé wu foofu def li ñu war a def yëpp après ñëw nag ci piste bi pour présenter wu ñu présenter leen ñu dem au départ loolu moom moo gën a logique loolu moom moo gën a tegu ci yoon comme ni nga ko waxee yàlla dogal na am nañu espace foofu ci kaw mooy foofu la maire bi bëggoon a def école bi foofu bu ñu ko exploité woon defar ko mu am lépp mën nañ fa def paddock bi c'est c'est c'est une très bonne c'est une c'est bon exemple daal. Euh, situation bi ñuy dund la situation actuelle ci filière bi coow li bëri na dawal nañu grand prix chef de l'État yu ñu fas yi nga xam ne ñoo ko dawoon def nañ ay test antidopage ñu yóbbu résultat yi mu ñëw coow li bëri yéen ay amateur ngeen ay observateur ngeen lan ngeen di wax ci loolu. waaw loolu ñun waxoon nañ ci peut-être avant sax parce que aussi parfois doo comprendre. da ngay nekk benn niveau bëgg def loo xamante ni peut-être ñun wax na niveau boobu yëgguñ fa exemple boo ñëwee ci affaire dopage yi ñun waxoon nañ ni affaire doppage yi nañ ko arrêté parce que condition yi mu laaj pour ñu réaliser ko ñun mënaguñ ko ci tâtonnement la ñuy def ak ci làmbatu te loolu de day question boo xam question bu sérieux question bu bu sensible la kon boo koy wax ci nit wala nga koy wax ci fas dafa war a doon lu leer lu dëgër nga xam boo ko tegee ki nga koy teg du am jiixi jaaxa da koy accepter très rapidement am na tamit voie de recours bu ko accepté wul mu jël ay voie de recours am dem fi mu war a dem du am coow du am wax xam nga dañoo war a weesu fu ñuy coowe xam nga bu ñu dimbalee ñu war a mën a am loo xamante ni mën nañ cee tegu mu leer naññ bu leeree du am coow foo gis coow di fa am rek parce que dafa am lu ci xaw a lëndëm ak lëndëm lëndëm lëndëm yooyu dañ koy dindi dañ koy dindi nañu fexe def li ñu war a def organiser wu fexe ba labo ñu am ko ici à Dakar et possible. c'est faisable ñu am ko. waaw parce que école inter état mi ngi fi boo boo bi fi ñuy former vétérinaires yi marocain yi. ivoiriens yi maliens yi yëpp fii lañ leen di former ISRA aussi mi ngi fi eh, di def ay liggéey bu mucc ayib jàpp naa ne Sénégal war na am laboratoire boo xam ne de mooy contrôler li nga xam ne mooy test antidopage ndax délai bi nga xam ne moom la ñuy maye 4 jours la bu demee am fa weer weer ak lu topp loolu day nekk loo xam ne eh, dele la boo xam ne dafa ëpp loolu kon war nañ koo xalaat ci 4 jours yi bu demee une semaine résultat yi ñëw ñu mën a xam wala. ñu créer centre boo xam ne day nekk fii di def loolu pour éviter tricherie bi nga xam ne euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy propriétaires yi ñu ngi koy def ndax sport bëggul tricherie moo tax ñu def commission boobu nga xam ne mooy saytu lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu antidopage. loolu dëgg la ñun def nañ ci ay gëstu euh, personnel bi mu ngi fii loolu moom kenn waxul kenn ren deetu ko li ñu manqué mooy quelque matériel ci labo bi mooy moo loolu la ñu war a am rek pour permettre ñu mën a def. ñu mën a def test yooyu ici au Sénégal donc loolu nañ ci jëm moo gën ñuy wax loo xamante ni comme ni nga ko waxee mu war a def 4 jours après war a dem war a dem taf-taf 2 jours 3 mu war a ñibbisiwaat pour joxe résultat yi comme condition yi amuñu ko ñun nee nañ déjà amuñu xaalis dañoo am problème moyen ñu am na yenn dépense yoo xamante ni nañ ko bàyyi à côté test yoo xamante ni benn jour nga koy def ci ci l'année bi muy grand prix chef de l'État ana yeneen du ko def ana yeneen course yi kenn du ko def donc test boobu bon am na importance mais nag aussi na fekk ñu egg ci niveau boobu am am mat am les moyens qu'il faut pour mën ko def ñu def ko mais bu ñu amagul moyens yooyu nañ patienté wu ba loolu réaliser wu parce que am na yu gën a urgent yoo xam ñu mën a régler fii ñu regle ko ba pare soog a dugg ci niveau boobu man ñu mooy suñu xalaat ci ci affaire dopage donc boo ñëwee ñu dellusiwaat ci filière bi moment bi fi mu taxawee donc ñoo ko gisandoo. donc ñi ngi waxoon dañoo bëggoon a teel a tijji parce que. mois de décembre mhm. parce que ñëpp xam nañ li li xew suñu kanam muy février les élections mhm. donc suñu teel du tijji rek ba élection yi duggee campagne bi dugg y aura problème kon après les élections rek lañ mu jëmati. mais à notre grande surprise ñu xëy ñu génnee ñu arrêté boo xamante ni pléthorique de personne. Euh, ah. bu pare jox leen mandat wu deux mois. Mhm. mandat bi xamuñu li ñu war a def ci deux mois lan la. mooy li objectif yi xamuñu ko mooy li ñu doon communication bi toujours doo xam da ngay toog di laajte rek xamuñu deux mois yi lañ lañ war a def nit ñi ci fal bari nañ da gis benn côté juridique lu mat quatre personne fal nañ fii juridique à côté frais juridique doo xam sax kenn ku ne lan moo ciy liggéeyam nga xamante ni problème lay mujj indi chevauchement day am day am mhm. nga dem communication même chose mhm. dugal nañ kii dugal kii dugal kii ba pare li ñu gën a déplorer mooy arrêté bi day indeendoo ñëpp te lii inconvénient bi indi ñëpp bi mooy kenn mënu faa jëlee sa morom même bu liggéeyul bu la neexee ñu fal la dootoo jaarati réunion mais bureau bi kenn mënu la faa génne parce que arrêté bi moo la fal moo fal mënuloo ma dara. est-ce que jotul tamit ñu xalaat parce que bu fekkee dafay am ay personnes ressources yoo xam ne mën nañu indil apport course yi ñu ne ku amul fas rek yow doo bokk ci bureau bi ndax euh, li nga xam ne moo jëm ci wàllu communication bi am na sooxe bu metti boo xam ne am na ci parce que nit ki faut nga nekk professionnel ci dara. doo ko mën a assumer est-ce que yooyu aussi du indi problème ku amul fas rek yow doo bokk ci bureau bi wala ku amul fas rek du ñu jéem a xalaat personne ressource boo xam ne mën na leen indil apport euh, pour ñu mën a doxal yooyu nga xam ne mooy mission yi nga xam ne ñooy mën a jëmale course yi ci kanam. waaw loolu nit ñi dañ koy wax mais loolu ba pare di ko xaw a sax peut-être di ko xaw a tuuti jëfee parce que course buñ mënuñu ko yemale ci borom fas yi rek ndax borom fas yi boo xoolee tamit day changé sax. yow ren mën ngaa bañ a am fas déwén nga am fas kon déwén borom fas nga kon da ngaa a ñëw mën nga am fas ren déwén amatoo fas kon da ngaa war a génn problème bi bureau bi CNG bi du ay affaire borom fas ak borom fas certes borom fas yi war nañ faa am seen représentation comme ni fa zooke war a am seen représentation les entraîneurs am ko fa euh, les amateurs am ko fa peut-être les éleveurs noonu dañ ko fa war a am pour permettre que ñoom ñooy doon sa sa sa sa link par rapport ak les autres exemple Zoké bu ñu amee seen représentation Zoké lu ñu war a kaas lu ñu bëgg xam mais Zoké mën seen représentation ba fa ne dana leen ko mën a yeggee dana leen mën a xamal texte yi expliquer leen ko formation boobu ñu doon wax mën naa jaar ci moom mu gérer leen de même ko au niveau des des des entraîneurs idem pour les pour les amateurs noonu la war a mën a demee mais bu ñu ko tënk ci ay borom fas ak lii te aussi il faut ñu leeral parfois dañuy wax propriétaire propriétaire dafa am pro dafa large borom saret bi ak borom motir bi propriétaire du cheval la mais est-ce que bokk na propriétaire boobu ak propriétaire bi ñuy wax ñun propriétaire bi ñuy wax mooy propriétaire de chevaux de course bi dawal course loolu même bu ñuy départ euh, saison bi dañoo war a xam yan propriétaire ñoo am fasu course yu daw ren ñu fiché ko ñu xam ñii ñooy propriétaire yi ñu am seen i carte am lépp di am accès loge ba exemple ñooñu bu ñu amee keneen ku dul ñoom bu ñëwee ci loge bi day dagg ticket bu daggee ticket loge bi war nay mën a def dikkee ay vingt cinq mille ay vingt mille pour keneen koo xam ne foo bëgg mais loolu mën naa générer de l' argent boo xamante ne di mën a dugg feneen ak feneen mais course yi mooy désordre bi ñu doon wax ñii doon nañ ci waxtaan sànq ñii paas bariwuñu dañuy ñëw nii am naa fas am naa fële fas bon boo amee fas aussi propriétaire de course la ñu wax. nga ànd ak juróom benn nit. nga ànd ak juróom duy sa oto ba mu fees nga ni dañuy ñëw dugg donc. mi ngoog course porte bi rek war na mën a génne xaalis bu bari boo xamante ni mën naa jàppalewaat ci gain yeeg yu mel noonu donc organisation boobu yëpp dafa laajaat ñu taxaw ci gën koo gën koo gën koo gën koo jàpp te yëpp dafay am solo aussi ñu ci waxtaan ak nit ñi ban koo yemale ci benn groupe bu restreint defe ni ca lay yem parce que yemul ci loolu parce que borom fas yi lu ñu bari bari fas suñ doon dawal te amuñ kenn ku leen seetaan du am njariñ lu ñu bari bari fas ñoom duñ ko war duñ ko dawal fas yi du ñoom du ñoo koy yor du ñoo koy toppatoo donc c'est un ensemble kenn ñëpp dañoo war a joxante cër joxante kii déglonte échangeante pour mbir mi ma gën a mën a jëm kanam. Euh, euh, fi mu nekk nii amateurs yi ñu ngi xaar ne saison bi euh, boo moytuwul mën na ubbi ay février parce que identifier guñu mool yi nga xam ne ñoo am ñaari at ñu ngi naan au mois de décembre bii lañ leen di identifier ndax dañoo bokk ci course yi est-ce que loolu du indi frain ci li nga xam ne mooy saison. 2023 2024 bi ndax doon nañu wax bu yàgg ne décembre dina fekk fas yu ubbi te gars yi commencé nañ liggéey bi bu yàgg te ñoom ci weewu fas rek la ñu yaakaar. waaw loolu nga wax mooy dëgg mais loolu aussi mooy li ñu doon wax rek mooy ñàkk d'organisation pas de communication kenn mënu laa wax fi ñu toll kañ la ñuy tijji ndax ñii ñu fal deux mois lañ leen jox deux mois ñu ngi jeex décembre bi donc il faut mu jeex a pare ñu tegaat leneen ba pare soo ko préparé soo ko ci waxi tijji classification bi kenn génnee ko. mais grand prix bu daaw bi rek kenn réglé gu ko sax te loolu lépp foofu mu parce que foofu ñu réglé ko parce que loolu day dugg ci classification bi loolu lépp réglé gul donc bu ñu waxee décembre lañuy dawal aussi ci yenn norme la ñu dawale dawale waat peut-être comme ni ñu defoon daaw wala neneen di dawal ci dawal profito déedéet ubbi pour ubbi non non il faut aussi ñu jël le temps qu'il faut teg ko les tous les normes teg calendrier bu normal bu war a commencer ci date bi jeex ci date bii ñu teg ko soog mën a ubbi mais bu ñu ubbi dans le désordre bu ñu dans la précipitation loolu amul njariñ nañu régler li ñu war a régler lépp def ko tijji dans les normes teg ko daal dawal parce que loolu mooy tax après bu ñu ubbee ba pare moom ak mucc du am ay arrêt duñ ubbi ba ci dawal ñetti course ñeenti course nañ taxaw am na problème nañu régler lii toogaat benn course loolu baaxul loolu baaxul baaxul sax ci fas yi baaxul ci liggéeykat yi parce que liggéey ba ci yàgg ñu arrêté donc day indi ay day indi ay erreur donc nañu préparer lépp ba nga xam bu ñuy ubbi dañ koy teg ci yoon ubbi d'accord ci ni nii nag la ñuy teg ñëpp d'accord ci bu ñu xasee ba ubbi nag ñëpp nangu ci ñooñu lu ñu dogal ñu xam ne ñooñu ñoo lañu dogal parce que ñu ñoo leen fi teg mais mënoo teg ay nit ba pare bu ñu dogalee nga génn ci biti bëgg a wax a wax a wax déedéet bu ñu d'accord de au départ ni ñii ñoo koy yor aussi nañ leen doyloo bu ñu àttee ñu xam ne loolu lañu ñu àtte ñu dox ci loolu peut-être wax mënut a ñaax mais am na foo xam ne waruñu faa yegg dañ leen di nangul parce que ñoom la ñu ñoom la ñu fal c'est Euh, ce mot de la fin euh, Ndiaga euh, parce que waxtaan wi am na solo lool ak loo xam ne bëggoon nga ko wax te laajuma la waaw peut-être li ñu bëggoon a wax te xawoon koo fàtte sax peut-être mooy association bi vraiment dañ leen santaat di leen gërëm parce que ñi ngi ñi ngi waajal yu bëree bëri comme li ma la doon wax sànq si suñuy objectif suñuy réalisation. parce que jotuñu ko wax daaw doon nañ primer les jockeys meilleur jockey du mois fair play parce que bëggoon nañu jockey yi ñu génn ci affaire yi ñu doon def dugg ci fair play parce que ku war a raw raw ku ñu raw nga xam ne defaruwaat ba ëllëg doon nañ primer meilleur jockey fair play njëkk koo def gajaga photo yi mi ngi fi donc après primer nañu fi aussi ay meilleur entraîneur du mois donc mooy performance yi sa fas def meilleur doon nañ ko primer image yi ñu ngi fi doon nañ même primer meilleur écurie mois écrit bi nga xamante ni aussi moo ëpp ay réalisation mm-hmm. parce que loolu day permettre aussi gars yi euh, gën a ñu ci am ñu ci am ay preuve à l'appui mm-hmm. pour l'avenir mm-hmm. pour pour leurs enfants et autres donc ñu def ay photo def ay diplôme def ay ay ay médailles def ay lakos jox leen ko ak tuuti xaalis boole ci jox leen ko noonu lañ doon def donc euh, mu nekkoon yu am solo ren saison bi ñu ngi koy waaj tamit à notre niveau ci association bi ñu ngi am yu ñuy yu ñuy yoo xamante ne bu CNG bi taxawee dinañ ci jéem waxtaan ak ñoom xool buñ ñu ko accepté lee ñu gën koo def yii moom duñ ko bàyyi dañ koy gën a pérenniser gën koo yaatal parce que buñ sañoon ñu dem ba di primer meilleur jockey du mois wala de l'année mu am sax oto pourquoi pas c'est possible loolu lépp c'est des liggéey la rek avec des sponsors ak et autres donc euh, muy doon lu am solo vraiment daal ñu ngi lay sant di la gërëm di la remercier di remercier aussi à l'occasion maa ngi ko doon fàtte le professeur Sakhir Thiam donc borom Teranga Ndiap parce que ñun ñi di wax aussi actionnaire lañu foofu au niveau de Teranga Ndiap parce que aussi lépp luy defar course bu ñu ko déggee ku ciy wax lépp luñ ci mën dañ ko ciy def parce que biñ gisee xalaat bi liir ko xool ko xam nañ ñi aussi lu mel noonu parce que seul le privé moo mën a def différence bi état li muy joxe mi ngi def li mu mën mais loolu doyul privé bi foofu mu dugal ci loxoom. pour mbir mi mën a jug fii mu dem dem ci à niveau comme làmb ji. est-ce que duñu xalaat aussi euh, fi ñu toll nii dem ci fédération parce que aussi CNG CNG yàgg na bu ñu créer fédération dañuy am ay districts ci régions yi ak départementat yi département yi mu mën a gën a dox bu vote jotee dañuy dem à l'assemblée générale ñu xool ki ñuy tànn. bu boobaa du doon structure ex exceptionnelle est-ce que loolu jarul aussi xalaat ndax léegi 90 pour cent des jeunes ñu ngi ci course yi mag ñi bëreetuñ ci. loolu nga wax mooy l'idéal loolu moom moo moo war a nekk moom loolu moo war a nekk dama ciy remercier sax suñu SG musaa euh, Bopp moom loolu rek lay wax fédération loolu la ñu war a jëm boobaa moom mooy noppal état moo ñuy noppal ñun parce que mbooloo mi ñun ñu séq suñu biir xamante nañ bu ñu xoolantee ba suñu biir ni ñii ñoo ñu nañ ñu jiite. coow du am mais le problème di koy indi mooy état moo ñuy falal ñi ñuy jiite ñun duñ mën nañ leen a bañ a xam ñun mën leen mën nañ bon doo comprendre cest à ñun faluñu leen état ñu ñu koy jox ni ñuy ñii ñoo leen di jiite donc loolu foofu la problème bu njëkk bi commencé mais bu ñu amoon fédération donc loolu day jeex parce que fédération bi secteur bu nekk ñoom ñooy dajaloo seen i nit fal foofu seen i bureau am seeni représentation yu ñëw au niveau national ñu voté niveau national teg bureau ñu liggéey boobaa état day valider mu dem. loolu mooy l'idéal loolu ci lañu war a jëm loolu mooy dëgg mooy yoon te état dañoo war a jàppale ci loolu loolu am te loolu li ci gën a baaxati mooy day dekkalaat yeneen dëkk yi am na dëkk yoo xam dëkk course la woon fay nañu parce que amatuñ ñu fa ne amatul fédération amul dara mais bu amee dëkk ba dey dekkiwaat. waaye course mbappat yi aussi euh, commencé na bëri nag ci ci yenn gox yi. ah loolu moo lay wan ni kon dëkk yi bëgg nañ course ba tey. Mhm. mais dañoo amul ñu leen jàppale dañoo amul ay njiit ñu fa nekk ak ñu leen organiser. mais bu ñu leen organiser nag comme en fédération comme noonu ñu am ay CRG foofu en général district yu dafa nekk mhm. ñu leen gérer ñuy organiser wu di dawal ba c'est l'occasion ñu remercier Ibrahima Diop Makodou parce que vraiment liggéey na ci liggéey bu am solo parce que daanaka moo ko dekkal li ñu ko tuddee dekkal mhm. ko dekkalaat yooyu yëpp judduwaat gars yi bëggaat ko parce que kon mi ngi woon ci xol yi te dinañ permettre régler waat problème yi jockey yi dina am jockey yu fa mën di jógee di ñëw di intégrer niveau bi dina am ay entraîneur ay defarkat liggéeykatu fas yoo xam dina fa mën di jugewaat di ñëw dañ fa amaat ay fas yoo xamante ni dinañ mën di ñëwaat euh, gën a yaatal filière bi donc loolu nga wax moom mooy l'idéal loolu mooy li war a am te dañ koy war a dox jëm ci le plus rapidement possible état bi jàppalañ ci ñu taxawal loolu. jërëjëf euh, njaga Diop président ANESI maa ngi lay sant te di la gërëm. Euh, ñoo ngi ak euh, ki nga xam ne mooy trésorier général ANACIM euh, muy El Hadji Bassirou Djigo El Hadji Bass lan ngay toftal ci li nga xam ne moom la président Ndiaga wax léegi ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu course. Mm-hmm. asalaamaaleykum grand Diallo ñoo ngi nuyu baax di la jaar wax dëgg yàlla course moom amateur si am solo comme lu président wax rek amateur si am solo wax dëgg bëgg nañu daal gis suñu bopp si course muy amateur ñu jox ñu wàll li moom jox ñu ko waaw daal bëgg ko si course dëgg yàlla. Ah, di woo waa CNG nag ñu reconnaître ñu comme le président wax bind na lettre ñëpp bind ministère bind CNG bind préfecture yi dañu war a revenir at ñuy reconnaître ñu lépp loo xam ne lu ñuy nas ñu boole ci amateur te amateur di seen wàll. xam nga tey bu ñuy wax course Sénégal daara daf ci def liggéey bu am solo ndax centre zootechnique bi fas yi nga xam ne ñooy daw fii Sénégal yi fi jëkk juddule yi ñu fi jëkk juddule fa la ñu jóge tey yéen a seen hippodrome bi pour def nañ pose première pierre bi boobu ba dey ñoo ngi xaar réalisation bi. waaw foofu moom dinaa si sawar wax euh, jafe-jafe yi fam bëri na ndaxte euh, maa ngi nuy passage président Pam Ndiaye Mbayanta ak euh, groupe bi ku mel ne Maguette Ndiaye Lo Ndiabe Samb Sidi Diakhaté wax dëgg yàlla macha allah daara moom desul tun dara waa daara suñu course bi bi ñu ko tegee bu ñu ko defee ba léegi waa daara jóg nañ dugg biir daara. jolof yëpp jàppale leen jàppale jël seen mooy jox leen ban am 30 tonnes ciment moo leen fa 30 ton ciment yoo xam ne moom moo fa tege am nañ xaalis nekk si kees bi am nañ ciment tamit état ñëw fa teg fa premier teg fa cause premier pierre ba léegi daal fi mu nekk mag fa ñi ngay fay chaque fin de mois ñi nga fay gardien ñi ngi sàcc mool yi te wax dëgg yàlla foofu tamit ñoo ngi woo état nañu si dimbale suñ course bi ñu defaral ñu ko wax dëgg yàlla soxla na ko trop daara bu fa course amul daanaka dara mu fa leen lu du course na am daara éleveurs yaa ngi fa bëri am pagaille buñ judlee mool duñ gis suñ koy jaay ndax dawultun gis nga saison bi passé daara dawul mu nekk loo xam ne échec la boo xam ne si course kenn mësu koo gis daara dafa war a dawal chaque année benn wala ñaar ñoo ngi woo état daal wax dëgg yàlla bu ñu mën a dimbalee suñ course bee la nga xam ne tey mool nañ lu ma 30 tonnes ciment na ko teg ñi ñëw tegul ñu pose première pierre ne état moo koy defar booba léegi gisuñu dara ñoo ngi woo état daal ñu dimbale suñ course bi nu mu gën a gaaw ñu wax dëgg yàlla ndaxte nga judd la mool gisoo koo ko jaay dafa métti fi ñu toll ni ku judd la mool da ngay dem daral jaay daral te am na wax dëgg nga am 200 wala 3 quarts nga am ko mënoo koy jaay loolu métti na te loolu ko waral yëpp mooy ñàkk dawal bi ñàkk am course bu baax euh, yow yaay trésorier général gis nañ daaw acte yu rafet yi ngeen def ci course yi di décorer jockey yi entraîneurs yi waaw association moom wax dëgg yàlla moom euh, ni mu débuté am na solo trop wax dëgg yàlla bu ñu juddoo yàggul fexe nañ ba am suñu récépissé reconnu par li si am solo mooy ñu ànd nekk benn rek gën a góorgóorlu doon jaay carte membre yi carte ba léegi ñu ngi jaay ku bëgg ñu jaay la ndax tëjuwul tëjuwul assurance nationale la waaw ku bëgg carte membre ñu jaay la ñoo ngi woo ñëpp li ñu def daaw loolu rafet la parce que loolu bëgg dañoo bëgg leneen lu gën a loolu sax dañoo bëgg leen bëgg dañoo bëgg leneen lu gën a raw loolu te pour ñu am raw loolu nag ñu am lu raw loolu il faut que ñu jàppale ñu borom euh, état euh, CNC jàppale ñu borom fas yi jàppale ñu ñun duñu jàpp suñu bopp ànd liggéey nekk benn ba déwén nañu mën a def lu raw lii ci course wax dëgg yàlla buñ ko toppee mën na def lu nekk entrepreneur boo xam ne mën na génn entreprise boo xam ne mën na génn lu nekk fas mën na génn lu nekk mais si koo ñi teg si yoon mais avec nii di course yi doxee tamit dañuy sonn rek du dem ak coow lu bëri lii mm. duñ dem xam nga dund fas dafa cher nga bëgg yor benn fas ñaar ñett ba ñeent ba juróom ba dix nga bëgg leen dundal bëgg wut entraîneur wut sooke bëgg joxe ngooñ dugub dafa métti kon nag loolu pour mu am mu mu mën see génn il faut que ñu suñu bopp si course xaalis course nañ ko delloo nitu course naka delloo fas xaalis course nañ ko delloo waa course bi ñu suñ bopp mbokki turfiste yi mbokki propriétaire de chevaux yi amateur jockey entraîneur tey nag seen émission bi nga xam ne mooy au ñu ngi dalal ki nga xam ne mooy président Ndiaga Diop muy président association nationale des amateurs de courses hippiques du Sénégal muy ANACI dégg ngeen kàddu yu am solo yi nga xam ne wax na ko ci lu jëm ci wàllu filière équine bi ak ni ñuy organiser woo pour mën a jëm ci kanam muy kàddu yu am solo waaye déglu nañ ki nga xam ne moom mooy El Hadji Bassirou Djigo di trésorier général moom nag mi ngi jóge ba Daara Jolof dégg ngeen kàddu yi nga xam ne wax na ko ak yéene yi nga xam ne association bi am nañ ko pour déwén ñu ko organiser ay courses yoo xam ne courses yu am solo la. mbokki turfis yi mbokki amateurs yi lii lañ leen indiloon seen émission au galop te di leen ñaanal jàmm.